xam nga ay AIS moo dem déclarer ne ànd na ak ñun ñun waxaguñ ko fenn moom moo déclaré waat ne génn na loolu rek lañ ci am luñ ci question ñun amuñ benn accord akkuguñ woon dara peut-être bi mu ñëwee pour teg ci taabalu négociation ni mu bëggee woon ñun nanguwuñ ko je pense que loolu ci àdduna la ànd amuñ woon benn accord accord bi ñu waroon a am lañ d'accordul c'est parce que dafa xaw a gaawtu déclarer ne ànd naa ñun waaye amul woon ànd sax bay am tàqali non ñun fi ñu toll joxuñ ñu délai xam nga dafa am procédure bi ñett dafa am loo xam dañ la koy rejeter parce que dañ ne autre motif dafa am boo xam dañ la koy rejeter ne la doublon doublon bi moom mën nga ko changer 1400 la mais bu changer 1400 yi tamit du tax ñu àgg ci 34000 yi léegi autre motif bi lañ xamagul nan la léegi autre motif buñ xamé nan la après dañ xol ba xam ndax dafa nek lo xamné ni nii euh, c'est irrecevable moy buñ la ci rejeté amoo beneen voie de recours wala ñom ñoo joom ci autre motif yi parce que gis nañ ci ay indices yo xamné ne yaakaar nañ ni ñom am am na ay joom joom daal waaw mais léegi joxaguñ ñu vendredi lañ wax ne lañ ñi jox jox samedi lañ ñi jox autre motif voilà mais gis nañ vraiment les sociétés civiles, def je pense que buñ ko appliqué dana je pense que euh, démocratie mom lu man ndax ne am xam parrainage ñi nga xam participer élection voix déterminant je pense que c'est un peu euh, c'est un peu cest illogique de dire que ben bokk indi yeewu askan wi indi parrainage ànd askan wi indi indépendant. je pense que ni ni coupe du monde di amee nga xam ne am na ci qualification yoo xam ne boo ci amee jëriñu la koy laaj je pense que démocratie sénégalaise war na àgg foofu ndax loolu dana wane ne boo participer ci benn élection ba montrer ne yow am nga yenn niveau yi je pense que loolu war nañ ko xalaat mais je pense que société civile déclaration bi ma gis ñu def c'est responsable je pense que autorité yi euh, war nañ ko war nañ ci def nañ ci def nañ ci tenir compte parce que jàmm dafa baax ci Sénégal élection am ci jàmm waaw xam nga man comme ni ñu ko waxee suñu déclaration dañoo jàpp rek ne jusqu'à preuve du contraire li jaaragoon yoon la jaar ndax euh, comme wax naa ko le président de la République dañu am ay relations yu yu depuis gouvernement après président de la république am nañ euh, je suis le président de l'union des chambres de commerce chambre de commerce institut public en même temps je suis membre du conseil économique et social parce que chambre de commerce moo fa siège la chambre de commerce désigné ñi décret def ko su fekkoon tey député laa jàll sax ñaar yooyu danaa ci choisir benn ndax loi bi nanguwul ñaar yëpp en même temps tamit li ci dolliku man am ak moom relation de travail mooy en étant maire de Kaolack je pense que ñun duñu changer suñu wax bi ñuy campagne dégg leen ñu fenn ñu dugg ci xëccoo wala xuloo directement avec gouvernement waxuma waxuma nag compétition yi ñu amoon au niveau local dugguñ ci dugguñ dénigrement dugguñ ci dara et vraiment danaa ci wax loo xam ne nii ko reconnaître neex nit ku ne tamit da ngay wax dëgg président de la république euh, le lendemain tabaski korité pardon ba nga yàkkamte <laughs> le lendemain korité maa reçu bi ma ñëwee certes xam nga ne président la république bu la recevoir lu muy wax moo mën a ànd ak moom la mais bi ma ko expliquer ñun fi ñu jëm ak li ñu bëgg a def ak fi ñu bëgg a taxawee nga xam ne nii dañoo bëgg ñun am suñ légitimité populaire parce que ñun ñëpp ñu nekk fii kenn ku ne am nga parti boo xam ne boo demoon ñu élire la ci te peut-être mën nga nekk député ñëpp xam nañ ne su fekkoon te dama bëgg a nekk candidat ben Bokk yakar pour Kaolack danaa ko don mo ma nek candidat Yewwi Askan Wi na ko don ak yenen ak yenen mais je préfère am légitimité populaire pour que euleuk bu may wax duñ ma wax ne ma li nga wax waroo ko wona wax ndax ci parti bi nga bok wala ci parti bi nga bokk looloo tax bi ma ko expliquer samay ambition ci yoy ba nopi vraiment avec surprise daf ko nangu wax ma ne ma d'accord na ci loolu li ma lay conseiller rek mom moy nga bañ dugg ci xastaate ak ci xuloo ak ci xeex et vraiment loolu dama ko ci remercier parce que loolu dafa dafa am solo dafa am solo kon man awma benn problème ak moom ak gouvernement bi ak kenn certes da nga am nag ay jafe-jafe ak les euh, les adversaires locaux mais ñoom tamit dañuy am jafe-jafe ci seen biir je pense que ndegam ñoom ci seen biir ñoo am théorisé ne ñoom li tax ñu perte Kaolack mooy dañoo xuloo ci seen biir waaw war nañoo dañoo war a fàtte ne tamit dañoo xuloo ak population bi tamit ndax li tax seen biir ñi la jege yow mënoo déggoo ñoom kon jàpp nga ne mënoo déggoo ak population bi kon xuloo boobu ñu xuloo population bi eh, ñàkk population bi ñàkk ci ñoom yaakaar eh, projet de développement yi nga xam ne nii Kaolack waroon na koo am te ñoom ñu waroon ko défendre muy contournement muy marché bi muy port bi muy ay hôpitaux muy aérodrome bi muy yëpp ñoom ñu nekk seen biir di ko xeex di ko yàq ci seen biir ba man mii sax li ma ciy dox ak yëpp ñu di ko yàq looloo tax population Kaolack rejeté leen te danañ leen kon ne di rejeté buñ génnul ci lii ñu nekk génn ci bi du juboo ñoom ci seen biir nañ juboo ak population bi juboo ak acteur politique ya fa nekkoon gañewoon leneen kooku buñ ko defee ah xëy na ñoom après population bi moy décidé di ñun ñoy jël population bi di leen wax fi ñu dem kon limay léral fi rek Serigne bu en tant que personne amul ben difficulté ak gouvernement bi amul ben difficulté ak président Macky Sall ak ñi fi nek ci an ma andal tamit yaakaar la même chose parce que Moubarak Lo dirige euh, un département gouvernemental président moo ko fa nommé bu andé ak ñun di liggéey kon yakarna lolu ñun. daf ñu dafa bëgg a won ne am na forme politique boo xam nit mën na koo def doo opposé au gouvernement bi doo nekk en conflit avec l'opposition da ngay taxaw taxawaay boo xam ne nii askan wi nga war a taxawal te loolu ci la ñu nekk te incha allah te yaakaar naa duñ ci am jafe-jafe ak kenn waaye nag dana am ñoo xam ne ni yàq rekk leen tax a jóg ak wër di yàq der boo ñoo ñu ñooñu mënaluñu leen dara ba àdduna taxawee ba léegi loolu dafa am li ñuy def rek moom mooy fexe faire ak ñoom ci suñu discipline ak suñu gëm-gëm.

danañ leen wax exactement luñ koy décider mais duñ duñu euh, toog banque suñu loxo ci élection yi incha allah parce que ñun ñëpp dañuy dem voter te am nañ baat buñ ci mën a waxee incha allah.